yéen muritu Touba Douala ak mbokki jullit yépp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi sëriñ baa ngi leen di jottali ay nuyoo yu bàyyi koo ca sang yu baax yenu bàyyi ko nuyoo yu ànd ak i ngërëm ak cant ak i ñaan maam Cheikh Ibrahima Fall suñu Cheikh jëmb nuyu na leen bu baax yàgg ngeen koo dégg de te ngeen ko ndax yàgg nañu fee ñëw yàgg leen fee fekk tànk yi de mooy tànki gatandoo ak gàtt ak tànki dimbalee waaye ne bi ñuy jëkkat jaar nañu ca ñaar ñanu bàyyi ko ñaan nañu leen feenu jëm ñanu fay fekki képp koo xam ne yaakaar nga ne bu nu la gisee. mu di sab coono. mbaa ñu di la fitnaal. te loolee ne cim xelam de yàlla bu nu sëñ Tuubaa wone leeg ñooña. waaye képp koo xam ne yaakaar nga ne. bu nu la gisee. sa aajo dana faju yàlla na nu sëriñ Tuubaa wone leeg kookee ñooñee. nag yéen ñi teew fii. te rafetal leen seen i bu baax te xam xuma kenn waaye yéen seen aajo dana faju nee bi nuy ñëw nag ngatandoom mi moo di kenn ku nekk ci yéen sëriñ baara wax na leen ko kenn ku ne amoon nga yéene bis boo xëyee borom bi dana la kartanal nga am nga am ab avion. dugg ci. dem Touba ci sa teew bakkan siyaare ji. del siwaat ginnaaw boo joxee say addi ak say sëriñ ca ba noppi. googu bëgg nag bu nekkee ci xol bi nga am ko. te yoragoo ko. lu lot nga yor sa téeméer. ñu gàttandu si la. nga wab téeméer boobee joxe ko. ñu joxal la ko Seex Ibra mu jox ko Serigne Touba loolu day am nga la naan la nga ca la nga ca bëgg ëpp na loolu téeméer bi mënoo cee paas dem ci senegal siyaare ji paas ci dellu si joxe ci sëri ca loolu day téeméer mënu ko moom kon bu ñu la gàttandoo nga joxe sa téeméer am ci loolu loolu day am gàttandoog la ndimbal li nag waaye lii nu leen fekk nga xam ne moo nu fi indi bàyyi nu fi muy liggéeyal sëñ Touba kon bu nu ñëwee fekk leen fi war nañ leen sant gërëm leen waaye nag di dimbal la saa yu nu ñëwee rek di ngeen dajaloo fii xab seenu ñaq jox nu ko nu boole koog li nu yor joxal leen ko Cheikh Ibra mu joxal leen ko Serigne Touba loolu nag mooy alal bokkul ak wërsëg wërsëg bi moom moo di kër yi soxna yi doom yi ak xaalis bi loolu lépp wërsëg rek la loolu nag man ngaa dem bàyyi ko fi mbaa moom mu dem bàyyi la fi kon loolee moomoo ko li nu moom mooy alal ji ñuy jox Serigne Touba. loolu du lakk du maxe du réer du jaawaloo kenn du ko sàcc te fa mu nekk rek nun la fa nekkal lu nu bëgg rek ñu defal nu ko jox kon loolu mooy alal alal de su ko bàyyi gannaaw danga koy yóbbuwaale fa nga jëm yéen ñii tukki xam ngeen fereet ak li nga en campagne oo fereet mooy la nga yóbbante ak campagne nag mooy li nga nekk sa loxo yomal xiyaam des na ko fereet dangay ngay yóbbante waaye doo ko yóbbaale de lépp loo xam da nga koy yóbbuwaale di nga ko fi bàyyi dem kon nag li nu nan ko fereet loola lu ci gën a gaaw nga jox ko sëriñ bi rek mooy tax boo demee fekk ko fa de Cheikh Saliou Mbacké mu baax ma yàlla na Serigne Touba dolli ngërëmam waxoon na ni Serigne Touba nee na kenn ku nekk ci nun yàlla sunu borom sàkkaale na la ak ñaari biir ne biir bi nu taqaloo ak moom ne bu nu ko def muy itte moom mi nu fi indi feeg jëlewunu fi waaw bu nu xëyee rek dana jox lu nu def ci biir yi nu taqool waaye biir bële ca bàmmeel te noonu faa jëm nag mm, lu nu fa deful duñ ko fa fekk kon nan leen góor góoru ca për boobee Cheikh Abdou mu baax ma nee na Serigne Touba yàlla na Serigne Touba dolli ngërëmam waxoon na yàlla amul lu bon boo defee lu baax mu fay la ko boo defee lu bon boo ko tuubee mu jéggal la waaye boo demee benn bu baax mu dolli ci juróom-ñeent muy fukk fay la boo defee benn bon mu déglu ba xam di nga tuubam de boo tuubee mu jégal la ko boo tuubul mu jël ko teg fee ni la mi ngi lay xaar mu ni nag nan fexe ba sunu benn benn yi bu mab suuf fukk fukki nan góorgóorlu bu baax a baax ci li nu fi indi te bàyyi nu fi ñu liggéeyal sëñ Tuubaa rek loolu ci sunu ci la sunu lépp ne ci la sunu defaru teeg ëllëg ne kon nan daw wuti ko bi nuy ñëw danoo laaj ndigal booba sax jàppoon nan lu ñëw du ma ne ndax bi ngeen déggee jamono yooyu waa Hizbu Tarxiya di siyaare ji sëriñ Tuubaa di Cheikh Muntaxa gaaw ba ca topp nga xam ne moo ko jiitu. la bàyyi ko mbar ñu Mbàkke. la bàyyi ko mbar ñu bàyyi ko Allemagne. am daayira mu ànd ak ñoom yóbbu leen seen ci jëmm. bañ dee ba jébbale seen daayira ba noppi. ka fa nekk ñu naan ko magay jàng. nga xam ne moo yore loxo sëriñ bi. mu ne sëriñ bi. ndax la nga ma waxoon ne naa ko wax sëriñ mën naa ko wax. mu ne ko wax ko wax. mu ne ma ma ngi ne ma sëñ bi nee na mbaar mii nga xam ci lañuy ñuy rangale ndog yi door ko yit seen borom da doon mbaaram seng mu bëggoon nag nga xeddi ko defar ko kuule ko ma ne ko fas naa ko yéene loolee daal lañ doon déglu loolee ci la ñu nekkoon tàmbale woon nañu ko ñaari fan ci weeru bi ñaar fukki fan ci weeru mars waaye bi ñu agsee ci màggaluk sëriñ Fallou gi nag àllarba jëkko jub ci la ñu kuule tabax ba ña ko doon liggéey nag wax ni kuulaas bi faaw ma am ñaar fukki fan ñu doon ko ñu doon ko def ko décoré ñu woo mbooloo mi wàññi leen ñenn ñi dañu leen dem leen waajale koor gi ñeen ñi ci des ñu des fa di defar la ca des ba loola ñooñu moom ñu nga ca moo tax ñu yaakaar ñu jéem a ñëw nag waaye mbaar moom bu ñu ko kóolewul woon dañuy laaj ndigal ñëw fii sëñ bi rek kon man ngeen ko nen kon nag faat noo ngi tàggoo delluwaat ci liggéey boobu benn daan liggéey liggéey ba kon faru daan jëm ñeenu fay fekki la leen fa tax a dem mooy bëgg a liggéeyal Serigne Touba ak liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall ak lu ñu yore njaboot ga te réew ba daa bari jafe-jafe ak i gàllankoor ma bëgg nag loo xam ni ndimbal lay doon lu ma yóbbuwaale ko su ma demee ca ñama jëm la fa jafe woon lépp borom bi yombal ko ci barke Cheikh Ibrahima gàllankoor yëpp dañ aña aaji yëpp faju te ca loolu ci Cheikh Ibrahima mii la ne te yaa fi maam Cheikh Ibrahima ma bëgg na nga jox ma loo xam ni dama ko yóbbuwaale ci ñama jëm soo ma ko mën a séddale soo ma joxee suuf it duma ko mën a seddale waaye ni ma ko bëggee ma ne nga ko ne defal sa jëmm ji tedd ji defal ma sama jëmm ji su ma demee ca ña ma jëm. ku ma fa teg bët. Cheikh Ibra Faty mu ne ma ni nga ko bëggee dina ne amee. demal te ñëw. ma bàyyi ko fa daal dem Touba. te sëñ Touba sëñ Mountakha Mbacké. siyaare ko. ñu ko de Mbacké daa am liggéey bu may liggéeyal sëriñ bi. te kilifa yu baax yi fi nekkoon. ñoom laa daan tàggoo. te ni ma lay bëgg a wax. moom laa moom laa leen daan tàggoo dama daa ñëw xam leen ni liggéey bi may liggéeyal sëriñ bi ca laa bëgg a dem te ña ma jëm ca ñoom la leen tax dem fa ñu jëm ñoom mooy bëgg a liggéeyal sëriñ bi ak lu ñu liggéeyal Seex Ibra ak lu ñu yore njaboot ga te réew ma daa bari jafe-jafe ak i gàllankoor te la leen di may lañu la ñu bëgg fañ jëm Serigne tuubaa ci moom la ne teew yaay Serigne Touba tey nu bëgg lu mu yóbbaale ca ñoom muy ndimbal loo xam ne su ma demee benn jullit ma fa gis mbaa mu murit Serigne Touba faj aajoom te yaa ma bëgg lu ma dimbal la mu yóbbaale ca ñoom soo ma joxee ndox du ma ko mën a séddale soo ma joxee suuf du ko mën a séddale. faal sa jëmm ji mbàkke. defal ko sama jëmm ji. waaw ba su ma demee ci ñi ma jëm. ku ma fa teg bët. Serigne Touba faj sa aajo. man ma boo demee loolee nga bëgg. da nga ko amee na nga ko bëggee. kon demal te ñëw. kon nag mi ngi dellu ñaanaat ci dara ji barkeem ñooñee. ak sëñ muy sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima. mu leen laaj. maam day nee la mu leen laaj. maam day gëm na ni jot na ca. te yéen na ko waa àdduna jépp. rawatina jullit yi. rawatina nag murit yi. kon nag murit yi nga xam ñoo nekk Touba Douala. nee moom de su sañoon ñëpp lay gis. waaye nag néew ma ku ma dégg. waaye néew ma su ku ma dégg de. suma ma ku ma dégg itam. ba doon ku ma dégg. ñoom mën nañu mën nañu ku ma dégg loola am. Ah, man na. ñoom mën nañu ku ma dégg loola am. ñoom mën ma dégg loola am. waaye nag damaa waxoon ne ku ma gis. yéen nee na kon nag man yéen laa gis. ngeen gis ma. kon la rajee ñaar ñooñee ma bàyyi ko. Sëriñ Tuubaa ak ra Ibra. seen aajo yëpp dana faju gàllankoor yëpp dana dañ. ku am ku fi. lu fi jafe woon te de aw yiw rek dana yomb. lépp dana jàpp ne. ci dara ñaar ñooñee. kon nag rafetal leen njort yi. nee kon mi ngi leen sant leen gërëm. ngatanu bi moo de bisub koor bii nu jëm. muy ndigalal sëñ Touba. mu lu mu joxoon Cheikh Ibra. sëñ Touba daawoolu Cheikh Ibra. ba muy wuy ji. mu ànd ak sëriñ Yaaram Mbay ak sëñ Njaay Roqee. ne ah man kat sama sang bi damaa woo. te la muy wax duma ko dégg man du ko mën a teqale ma bëgg nag suñ demee yéen nii ngeen déglul ma la muy wax bu ngeen bu ñu jógee ngeen leeralal ma ko ba ñëwee ba siyaare sëriñ Tuubaa ni ko mu ne ko Mbakke mu ne ko dafa am gan ñu may séenu bëgg na nga wutalal ma gan ñooñee ay berne foofu la sëñ Tuubaa yem de daal di jug dem. ba ñu jógee ñoom it nag. ba dox ay jéego. Cheikh wala daal di leen di ñaar ñi ma àndalat. mu ne yaaram. ana Njaay roqee. pour que ñu ngi nit noo ngi nii de. ne la sama baax ba lu mu wax. ah Baal dafa wax ne. daa am gan ñu muy séenu. bëgg nga wutal leen ay beer na. mu ne xam naa gan ñi muy wax. weeru koor wi ñëw lay wax. daan na ko Njaay roqee mu ne ko bindal tànk mu bind tànk boo xam ne taa tombe la ak keef mu ne ko loolu boo ko àddadee ñaata lay doon ñeenti téeméer ñaar fukk deli faal moom lay doon mu ne ko loolu ah, de daa bari mu ne ko bindal ma tànk boo xam ni daañu ko wax taat ci daraw daanañ ko waxee taa tànk boole koo keef mu ne ko loolu ñaata la mu ne ko lii ñaar fukk ak juróom-ñeent la. taagi juróom-ñeent la. keef gi ñaar fukk la. mu ne xanaa kon muy weer. mu ne ko waaw faal. mu ne liggéey bi ma sëñ Bàmbay bi liggéeyloo. ku ma jox tànk. ma war loola weer wu ñu nangu. weeru koor wu ñu nangu. boo dee ma tàbbal laa jëra. yéen li ngeen joxe. yaakaar naa mën na mën na junniy tànk. yéen mën na junniy tànk moom jox ngeen ko talaaj bu leen daaj ñu leen ko. kon yéen. rafet leen njort ci ne. am ngeen weeru koor wu ñu nangu ba noppi. te it nag koor gi teroogul. ginnaaw dund gi it nag. ajjana képp la ñu jëm nag. ndax Cheikh Ibra ko wax te lu waxan ko. te lu wax dana ko def. kon nag jërë ngeen jëfati. baax a baax sant nañ bu baax a baax. liggéey bi ngeen jébbal la. liggéey bii ngeen jébbal. fas nañu ko yéenee jël. fas nañu ko yéenee jël. boole koog sunu liggéey. joxal leen ko maam Cheikh Ibra mu joxal ma ko sëñ Touba. loolu moo di alal ju dul yàqu. mooy denc bu kenn dul sàcc. kon nag jërë ngeen jëfati. yéen waa Touba Douala. seen addi yi. rëy na lool. moom de xam naa di ngeen ko xeeb sax yéen. jëf ju baax moo ndax jëf ju baax a mel noonu. borom da koy xeeb. waaye fi mu jëm si de. rëy na fi lool. te xol seet na ci bu baax a baax. ndax ñi ko dégg. ak ñi ko déggul. kenn ku ne. la mu ca def. moo ko moom. ndax jëf ji du jaawaloo. ndox yi muy taw ndoxi borom bi. ay malaaka koy bax te malaaka mu ne genn lox lay ba bu ko bàyyee déwénati rek te du ko jaawale moom mi koy wàcceelu ki toqale ndoxi taw yi xam nu mu demee du jaawale ji fi jaar doomi aadama yi du ko jaaxal la kon nag ku ci def dërëm ak ku ci def junni loolu mën a xew rek yaa ko moom loo ci def rek buñ la ko fayee da nga xeeb la nga defal lool kon nag yàlla na nu ko gërëmal. tey ak te koo def lool. te Cheikh Ibrahima nangul la liggéey bi. te barkeelal la ko. ci barkeb sëñ Touba. joxe ngeen fi ñaari téeméeri junne. jàmbar ngeen de. loolu mooy million. Baye Fall ci seen biir it. di ànd di ñuy ànd ak yéen. gone yi ànd ak ñoom. ñu amee seen addiya juróom-ñaari junni ak téeméer la jàmbaar lañu ba tey kon nag yéen it jërë ngeen jëfati yàlla na borom bi fay leen ngën ji fay ci barkeb Cheikh Ibra nee na yàlla na borom bi guddal fan yi te wéral yaram yi te dolli xéewal yi léegi lu mu leen ñaanal ñaanal kenn ku nekk ci yéen sab xol xam nga lu ca loo xam ni bu ñu ko tuddul it da ngay defe ni ñaanaluñ la de waaye ya borom bi xam na li ci xol yi de te umpalewu ci dara tëlewu ci dara yi kon nag kenn ku ne li nga aajowoo muy nox nox yi yaa ne ci suñ tubaab Cheikh Ibra mu defal leen li ngeen gën a bëgg amin seen jàngoor yi nga xam noo ko bokk ñun ñëpp nun murit yëpp noo ko bokk sunu jàngoro nun murit. sunu jàngoro yi murit. sunu jàngoro nun murit. sunu jàngoro nun murit. li nuy metti. li mooy li sëñ bi bëgg te mënuñu ko. loolu daal mooy wàpp murit. waaye li sëñ bëgg kat bu nu ko mënee. dara méttiwul. kon li mu bëgg yàlla nañu ko mën. kon nag jërë ngeen jëf. naan fedd la laxasay bu baax. daw naa wut ci sëñ bi rek. te xam ne fa lépp ne. sëñ moom bu nee ba fa moom. laaj na lépp boromam. te noo tax mu laaj ko. àddina moom bu ñu dawee wutu ko it. dañuy daw rek. te dañ lu daw daa dàq dàq. duñu ko jàpp mukk. bu doon course. kenn du daw ba raw ci course su eh, àdduna yi kese. loolu daw daw daw. ab saay saay na ci sa kanam rek. kooku mënut a dàq. nan nan dàq rek wuti suñu borom foofaa mot a jëm kon nag jërë ngeen jëf nee xolam seet na bu baax a baax nee bërki démb nee dégg na ci waxukaay yii sëñ Isaaxa Mbàkke moom Seex ba Mbàkke mu wax ca loo xam ne day sàkkuwaat ndimbal ci Seex Muntaxa bëgg julli yëpp ak murit yi maasa ci ñaanal ko ci loolee moom sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu tawér te li mu yéene liggéey liggéey yéene liggéey sëñ Touba mu defee ko ni mu ko bëggee te dara bañ caa des ci dara jëy lii mu bëgg a wax mu ne murit bu xëyati taman ko na nga jàng sóoratu yaasin ba mu jeex benn yoon ak téeméer la fawil lana umrana sahih lana badanan wa hab lana rusda wa tawfiq yàlla téeméeri yoon ñaan ñaan boo noppee ñaanal sëñ Muntaxa yàgg fi te loolu ñaanal ko ko mooy ñaanal sa ndax sallallahu alayhi bi moo digle ñu ñaanal ko te loo ko ñaanal sa bopp rek ngay ñaanal ne moom ni muy mel yàlla noppi na ca bu yàgg waaye nun nag la yàlla bëgg a dimbali moo tax ñu sàkk ñaanam seen ko sëñ Muntaxa Mbàkke na mu ñaan noo ngi ñaan ci daraje maamam ak ak maam si rafal murit ba sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko te li mu yéenee liggéeyal maamam mu defe ko na mu ko bëggee naan ko ak moom nee ñu ngi nuy dooleel siyaare ba tey sunu sang bu baax bi fi bàyyi ko muy Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na sëñ Tuubaa doole yi gën a bokk doole yi leeram tax na ci barkeem ndax nee liggéey bi gàtt na lool waaye réy na nag lool nee liggéey na sëñ Tuubaa ci lislaam loo xam ñëpp ñëpp xam nañu ni li sëñ Tuubaa bëggoon la muy bennoo ànd ci lislaam te loolu bari na ci lu mu def lool kon yàlla nañu ko sëñ Tuubaa fayal kon nu it nañ booloo bu baax te jéem a ànd te yéenante jàmm ndax yéene daa rëy loo yéene sa moroom jàmm yaa ko ciy ëpp de kon nag na rafet sëñ wàllu faal mu baax ma sëñ moo ko daana misaal yéene ca bee xolxom bu tedd ba nii la daa def baaraam ba ni yéene gi nii benn bal la suñu ko nangoo fa mu jëm ñeent yi banku yaa ko moom yow li yéene woon su gàntoo ba bankoo nag juróomi bal ngay am juróomi bal bu dul jàmm ah mu dal dana fa def mbir de kon nan yéeneente jàmm bu baax te boole sunu bopp bu baax te daw liggéey la sëriñ Tuubaa rek al jinoom alal ku ñu dimbali rek la waaye du caagee ne ndey mën na koo liggéey mbaa ak njàmbaar mën na koo maye ak taalibi rek ak taalibi du alali saay saay alali ku ñu dimbali la sëñ Fallou Mbacke mu baax ma dee ngeen kàddu yam waxoon ne sëñ Tuubaa di leen woo fa ak sëñ Masamba Mbacke. ak sëñ Maroqi Bousso. ak ak sëñ Moustapha Mbacke. ak moom sëñ ba ñu ñëwee mu ni leen. da ngeen dama bëgg ngeen ñëw ma laaxee leen biir. laaxee biir nag moo di. leen. mu ne mbaa xam ngeen ni du ma magi kenn. sëñ Masamba daal di jël wàllam. mbaa xam ngeen du ma di kenn. sëñ ma roqee bu sa jël wàllam. mu ne maa xam ngeen ne du ma bàyyi kenn sëñ Moussa ak sëñ Fallou jël loola loolu de bu ñu doon jaaxle jaaxle day danañu ko def waaye muñ teg ca nag ni leen lu dul ku ñëw fii fi man lii fi man nga wut ko ni ñu koy wute may sa mag di sa nijaay di sa bàyyi wutoo ko ni ñu koy wute doo ci man duma ci yow loolu moo di ak taalibe bi wut ak taalibe rek moo tax ak taalibe bi ëpp lépp kon bu ñu dimbalee ba nu am ko nan ko téye suñu fukki loxo te góorgóorlu ci bu baax bu kenn ne sëñ bi lim bëgg kenn mënu ko da naa mënu ko rek maa nga noppi waaye lim bëgg sëñ bi lim bëgg ah laay day am de am na bu yàgg ndax bëggug yàlla la yor te lu yàlla bëgg dana am kon yàlla nu borom bi dimbali ba lu sëñ bi bëgg rek yàlla na nu ko man te yaa koy jëfe lool ci barke maam Cheikh Fall mooy hmm? dinañu fàttali loo xam ne dana koy fàttaliwaat fii am nañu ko ci xam mbaa ñu xam ko ba nu fàttewaat ko mbaa mbaa ñu yeesalal leen ko ba ngeen fàttali ko Serigne Touba dani saa yoo xëyee teg sa tànk fi suuf bala ngaa tëddaat ngoon ca lal ba soo ko manee na nga jàng faatiha ju sell ak ñaari téeméeri lixlaas ak salaatu boo ko mën a tëjee loolu day bis boo ko defee borom bi dana la jéggal bàkkaarab juróom fukki at loolu na ku ko taxoo boo setul wiccit ah da nga a rafet njort de gaa yi déglu leen bu baax qul huwa allahu ahadun allah samadu lam yalid walam yulad walam yakun ahad ba muy ñaari téeméer yoon ginnaaw fatiha nga ne allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim yàlla dana la jéggal ci bis bi bàkkaarab juróom fukki at yow amu ko juróom fukki at ñu jéggal la bàkkaarab juróom fukki at waaye bu mu tax nga naa ko yow sax ci rek boo ci saxee rek di nga di nga gën a set kon nag bisimilah am nag beneen ndigal boo xam ne ñu ngi ci biir sëriñ Fallou Mbacke moo la ko dimbalee waat ndax moo liggéeyal sëriñ Touba ab téere boo xam ni ab kaamil la ba mu bindee ba jox ko sëriñ Touba sëriñ Touba xool téere ba xoolam sedd ca mu ne ko Fallou mu ne ko Mbacke mu ne ko sa borom nee na nga bindal ko téere bu mel nii mu ne ko ah man de Mbàkke yow mi ma ko jottali su fekkoon ne yaa ma koy bindloo de mën naa koo def addiya nag waaye moom nag de moom dama koy jaay moom moom maa mel daal moom Sëñ Tuubaa ak yàlla fi sorewuñu Sëñ Tuubaa daal ne ko ci saase sa borom kat nee na loo ko koy jaay mais sëñ Fallou ne ko ah di daa tuutiwul mu ne ko ah, nee na wax rek am na fay. mu ne ko ah man de bu ma ko bindee ba indil la ko. ba teg ko sa loxo yu mii. nga teg ko ci loxoom. la mu ba mu bëgg ko. lay njëgg tama di ko ko jaayee. moo de yow mii di Serigne Touba. koo xam ne yàlla dimbali na ko ba nga xam ko yow. kooka bu mu lakk. koo xam ne fexe na ba xam la it. bu mu lakk moom itam. Eh, sëñ Tuubaa ne ko sa borom nangul nañ la waaye sëñ Tuubaa sëñ Fallou laay biir waaye loolu njëgg la koo xam ni sëñ Fallou nu ko dimbalee liggéey la nu ko am beneen bu mu ci dolli nag boo xam ni moo ko waxal boppamaat ci làmmiñam ne mu ne ma Fallou bu ñu ma tuddee ma xottil ko mbootu waaye man naa nag Fallou mu ne ma boole Fallou ma ñu ma tudde ak ndeyam ak baayam tàbbal leen àjjana loolu dee daq mboota moom day xar kon moom mii di wax ak nun mi ngi nuy ñaan te dinu ñaanal nag ci li mu nuy ñaan li mu nuy ñaanal moo di fan yu gudd yu ak wér ni leen amin ak xéewal yaatu ta bari ni leen amin ak soxna yu mel ni nu ko bëggee ni leen amin te may nu ci ak njaboot ni leen amin gu góor ak jigéen su boobee nag loolee ni sëñ Fallou di ñaan ci biir loolu kenn ku nekk ci noonu na nga fexe ba tudde sëñ Fallou Mbacké doom doom ñaar la góor ba jigéen sëriñ Fallou mbaa soxna Fallou lu ci nekk baax na waaye waaye loolu ne mi ngi ne koy ñaanal ngir yéenu nu jàmm te dina ko ñaan kon nag a ngeen jëf nan fedd laxasaay bu baax ci li am lu dul moom ñoom muy taalibe gi rek. bi ñuy ñëw. bi ñu wootee fii. laaj seen Cheikh gi ñu ne daa dem Sénégal. ma woo jaane. jot naa ko. waaye damaa xamaloon ni. dama ne ci yoonu Sénégal. xëy na doo ma fi fekk. waaye murid kat ñu ngi fi ñu ngi fi ma ne ko ma daal di woo sëñ màggat. ne ko kon kat ngi ñëw. booba mën a góol a xam bis bi ndax amagunu kayit yi ñuy xamal bis bi waaye mi ngi yëglu daal boobee ba tey yéen a ngi nuy séentu denu gàttandu dinu yàkkawi ko bi nu ñëwee ba agsi it gàttanu ngeen nu dalal ngeen nu dal yi gën ci dal yi ab dal du ndab dum néeg cib xol lañuy dalal gan mu yaa tax seen xol yi ci ngeen nu dalal gis na nañu mu feeñ it ci kanam yi ci safoo gi ak bëgg gi ak yéene gi jàmm loolu gis nañu ko ngeen teral nu teraanga ju mat sëkk fab seen addee jox na ko kon loolu sedd na sunu xol lool waaye sunu borom mi tëlewul dara tey def lépp mu ngi koy ñaan ci kàrtu Sëriñ Tuubaa kàrtu maam Cheikh Ibra lu ngeen. lu ngeen ci def. yàlla na ngeen ko gën a man te yaa koo def lool. barke Cheikh Modou Fallilou. jërë ngeen jëfate. daaw bi nu fi ñëwee. jox ngeen nu seenu ñàkk. nu boole ko ak sunu wax. joxal leen ko Cheikh ra mu joxal na ko Serigne Touba. loola nag raw na moom. lii mu leen di bëgg woon. lii itam lii ngeen joxe nii. fas nañ ko yéenee boole li ñu yor. joxal leen ko Cheikh ra mu joxal na ko Serigne Touba rek seen addi daaw gàmmu gii nu jàll ci la ñu ko jébbalee ba ñu gàmmoo ba ci suba sa ba nu ko jébbalee kayit yi ñu leen di jox bu ngeen joxee daaira ñu jox leen nu kayit wane ne li ngeen indi woon agsi na bu ngeen ñëwee woote daaira ñi demoon ak ñi demoon ñëpp bokk ko teewe ngeen jot leen nuyoo sëriñ bi ak i cantam ak i ngërëmam wane ne la ngeen nu joxoon teg na ko ci loxol sëriñ bi tontu lii moo nu ko jox mu daal leen di leer nañ jàng ko ñëpp dégg ko loolu këyitu seere la këyit wii ñu leen di joxe leen ko jàngal moom it këyitu seere rek la ci jublu waaye ndamu taxul du ngistal du wane du naw ndax ah, borom liggéey bi ñuy liggéeyal di Cheikh Modou Amin Tafal waxe ne ca làmmiñ bu tedd wa ni way jërëm bu baax woon na ko Cheikh Moussa Fall noonu na ko addiya loo ca def lu mu bari bari bu ko nanga ko xeeb tafate ko ni ko nag ku lay nawal addiya sam noonu la ko nag loola moo waral kayit wi bëgg noo def nu ko ngir ngistaloo mbaa damoo dañu ko bokk ak di leen wan ni la ngeen nu joxoon joxal nañ leen ko Cheikh Ibra mooy lii lii itam lii ngeen joxe léegi nii lañ koy defaat rek moo ko jàngee ba noppi ñu ñaanal nu rek nu dellu ci itte yi da ngeen di yedd ci coono yi am yoo xam dañuy fanaan mën naa ci liggéey am ñoo xam dañuy teel a xëy waaye loolu lépp lu ci mën a am xoolam daal sedd na gan boo ko gàttandoo dalal ko buy dem man ko koo gunge nag kon am gunge rek moo ci des de gàtt na de mu ne bind fi ñëwee ak léegi waaye nag gudd na nag fii sëñ bi moom ndax xool bu sedd la fi doon wut am na ko leen taxaw na jóg fekkee bi nu ko fekkee. la sunu xol sedd. loolu moo di taalibe. bi nu ñëwee gis nanu ko. fekk nañ ko fi. kon ak jërë ngeen jëf. danoo bëgg bu subaa bu nu xëyee. di ma tàllal tànk yi ba Abidjan. ndax koor gi day ñëw te danoo bëgg dem ca ndogu ya. dem ca ndogu ya. bu soobee yàlla. baarakàlla waaw. Euh, kon sëñ oustaz sëñ màggat leetar bii li tax ñu bind ko wax nañ leen ko noon naa leen fii daaw addiyee dees na ko bind ah, noon naa leen Ababacar Sadiq ginnaaw Xadija moo jëkk a joxe addiyee kere bi mu duggee ci lislaam la joxe capital am moom te commerçant ñeen fukki junniy dinaar la ko fekk leel te ñeen fukki dinaar loola ñeen fukki junniy booba ëpp na ñeenti téeméeri milliards ci jamono ji ne jamono yi Cheikh jamono yonte yàlla Muhammad mboobam moo di capital am te da ko wëq benn yoon jox ko Rasulullaay addiya bu ñu ko bindaloon mu ne su la fexe ba xam ndax ko ko fekk néew fi am de kon addiya ji kera ba ñu gàmmoo ba ci suba sa la ko sëñ bi jébbal sëñ Cheikh Jëmb Fall mu yëndal ko ko Serigne Touba. saa yu ñu gàmmoo Basamaan set it noonu la sëñ Fall di defaat lii ngeen ko joxit bu ca àggee noonu la koy defewaat te it Cheikh Modou Falilou Fall yàlla na ko sunu borom dollil ay dara ak leer ne leen amin bu ma saa di joxe addiye ba ñu jox ko bataaxel la mu koy adressé moom wonewul ni moom moo ko def dana addiye Cheikh Moustapha Fall way juróom wa rek la jàpp ne moo ko def ci darajaam la ko def sëriñ fal it ci loolu la ne addiye ji Cheikh Fallou Fall Cheikh fal Fallou Fall la ci adressé ndax moom it yëg na ci boppam ni ak manam ci manok bu Moustapha ci Cheikh manok Cheikh Modou fal rek la ne bu ko defee nag nee na leen du ndamu du yéemu du daraja da leen di wan ne moo yéen ko bokkal mu bëgg ngeen xam ne la ngeen bokk nag moom def ñe def na ca la wàllam moo ngi mu dëkkal ba yor ko Cheikh Ibra mu joxal na ko Serigne Touba loola waral de seeres yi te leetar bii kat nekk ci am murit ndam la ndax man ngaa dem ba sëy setaat gis say bagage xool ko xam ni lii liggéeyal Serigne Touba la ka doon jëf day yokk la xool ka defoo ne ay nax la dana wëlbatiku naa ndeke sama maam daana def lii ah man kat kon bu yóbboo may joxe addiya lu bat lu bàyyi a bàyyi xel la te kat léeg-léeg nga gis ci koo xam bu ñuy nettali sa jëfi maam bu dee lu rëy tarafet da ngay kontaan te da ngay bëgg ñëpp gis la xam ni kii maama ma defal lii am déet ah bu dee ca xeexu bu njëkk ba bu ñu nee sama ma rey du dugg fi rey rey nga daal di fonki dafa ni yow bu doon boo ci àggee dangay ngay reyee fekk nag waru laa reyee waaye bu ñu nee samaam de liggéeyal na sëñ Tuubaa ba mu gërëm ko a ngay kontaan ku ne da lay xoolaat ndax samaam de sëñ Tuubaa gërëm rek mbaa Cheikh gërëm ko kon lii mat naa bàyyi xel mais dañuy am ay sët bu ëllëgee bu nu fi nekkul sët yi xam ne seen maam yi daan nañu liggéeyal Seex Ibra ba ngeen loolu mat naa bàyyi xel mu ne addiyatu Seex Mamadu Falilu Fall juróom benn fukki million ak fukki nag ak juróom ak fukki juróom ak juróom juróom fukki butéel lat ko lañ ak ñaari bërigoy suukar ak juróom fukk ak juróom fukki kilo kafe ak fukki kilo yi jar ak juróom ak ñaari téeméeri bërigoy pepp lii la sëriñ bi boole ci gàmmu gi jox ko sëriñ Cheikh jëmb mu boole koog la mu yor yëtal na ko sëriñ Touba boo déggee nag mu tudd suukar wax naa leen ko ba tàyyi ñaari bërigoy suukar boo ko bëggee wutal café da wut juróom fukki kilo yi café ak ak fukki kilo yi jar ak juróom boo boolee kafe gi jar gi saaf ko boo ko dëbbee te man koo segg boo ko seggee segg bu yem boo ko suukaree ñaari bërigo suukar yii da cay yem képp du ëpp du yées ma dégg ngeen loolu boo ca boolee nag ñaari téeméeri bërigoy pepp defe naa laaxu sow du la jafe mbaa fonde mbaa cere am déet mbaa laaxu bisaab mbaa laaxu caaxaan boo ko boolee nag yii nag buñ ci reyee wenn ñu man cee ndaw lu taal ci attaay ji wëlbati ko boole ko kafe gi yor kaamil yi di jàng xeeñ ca lan ko lañ ji defe naa ne jataay ba du naqari kon Cheikh Ibra xam ne ni muy organiser yoonu Serigne Touba lu war a ànd lay boole jox ko sëriñ Touba mu jox ko ñu ñoom ñu nekk ci bànneexu ngir jimbi yàlla kon bàyyi leen ko xel mi ngi nii na ngeen fexe ba kenn ko ne am ci benn def ko ci poosam. dante yi tubaab yi yorloo na ko kat dañ la bëgg a xàmmee rek kii nag xàmmee ko ci Serigne Touba moo gën amoon na ca Ziguinchor yàlla yàlla mu ci yàlla musal ndax xalaxal mawta wal ayaat la yàlla wax Ziguinchor nag la ko wër daa am benn waay bu doon abela dem ci dëkk boo xam ne ña fa ne dégguñu wolof yàlla dogal mu mu nelaw fa gisuñu ci moom lenn. waaye këyitu addiya gi itam bokkan ci da daayira Ziguinchor bi bañ ko gisee ci poos bi imam ba jàng ko daan ni ah kii de murita la mura la de te ñoom de farlu nañu nañu dem Ziguinchor kilifa murit yaa nga fa muy jëwriñ ji bu ñu ko ko waxee danañu ko jël yóbbu ko Touba kooko moom d'accord ne di murit farlu la bu ñu dikkee wax ko imam jëwriñ ji dañoo daal di jël oto dem jëli ko yóbbu ko Touba xottil ko càngaay dikk dajewaat cotiser jënd nag jënd su kafe ak suukar ak warga daje jàng alxuraan ak xasida togg ay ñem joxe ñaanal ko yàlla yàlla doon ko yërmande ca la ko Sëñ Touba defal loolu nag këyitu këyitu addi yi moo ko may waaye yorul woon weneen këyit wu ñu xam kat te bu ko yorul woon foofee lañ koy suul ndax du ñu am fu ñu ko jëmee du teet nag mu dem àjjana bu dee murit waaye nag mandargam dem na Touba daa gën a dal xelam ma daal bu ñu nee du faatu na ko ñaanal waaye bu ñu nee dem na Touba nag ci laa jëkk yéegi ni sama ñaan nangu na ndax sëtub sëñ Fallu moo ne sëriñ Touba nee na bi mu nee njariñ da daa def léeg-léeg ñu tàggee ko nit mu ne nañu ko toppatoo ma ñëw ñu jox ko boromam léeg-léeg ñu tàggee ko nit mu ne yóbbu leen ma ko tuubaa ah mag ñi nag nekk ci wala nga wala yaa nga di xalaat te murit ñi mu la laajub sëriñam fi mu ne léeg-léeg toog ba yàgg mu am lu nu jaaxal bi waaye ñi mu ko laaj sëñ Fallu waaye ci biir waxtaanam rek dana nu ci tontu ba nga xam ne lan doon déeyoo moom am na lu ko ci yàlla xamal ba mi ngi koy waxtaane te teeguloon ci suñu biir wallaay léeg-léeg loolu am léeg mu nekk di waxtaan ba yàgg mu laal loo xam ne tuddoon nañu ko fi nu toog te nun duñ ko ko wax yàllaa koy ci ku ñu topp léegi nag bi mu am sëñ Tuubaa jekk baa ngi mu woote ah dama leen bëgg a ubbi ci lu ub seeni bopp ndax daa mel ne da cee am ñuñ ki may toppatoo fii di ko denceel sa bopp ci la seeni xel di gën a dal ka muy yóbbu la Tuubaa ñépp si gi mel na dañu ko ne waaw waaw mu leen demewul noonu ki may toppatoo fii maa ciy def saa bëgg bopp saa borom dina ma ci ndax booba day fekk maa mu jot waaye bu ñu mënee di bàyyi ko na te ma nekk sama digg ak sama borom lu mu mun ta ba dama koy yóbbu yóbbulu Touba ndax sama borom moo ma xamal ne suufus Touba moo la gën a gaaw ci sama yërmande ku ñu ma indil Touba rek suuf si sa suuf see la gën a gaaw kon xanaa suuf kay bu gënee gaaw la fa sëñ Touba dafa tax am déet kon am nanu lu kenn amul nan ko téye tey def lu kenn dul def fii mu ne yéen na fi faj aajo yi gan ñi waxuma sëriñ si gan ñi fiy ñëw ku fi ñëwul ci kër sëriñ Touba gii ba mu yi xam ko lu gaaw aajum du gaaw a faju de am déet suñ màggat kon loolu mat naa ñaan yàlla doole leen ak man ci barkeb maam Cheikh Rafal barkeb sëriñ Fallu mii toog ñaanaat leen sëriñ Fallu yàq ñëw ko ilaha illallah la ilaha illallah